mbokku internet ñu bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi. kii di Youssou nduur nag dañ ko daal di accuser rek ni ko dafa daal di bénéficier euh, ci benn marché de produits euh, hydroalcooliques nag moom Youssou Ndour nag daal dina euh, démentir boobule xibaar ba noppi daal di menacer porter plainte. ba tax na cellule de communication wu euh, PDG bu euh, groupe Futur Média boobule euh, ci benn communiqué bu ñu daal di envoyé rek ñoom ñu ngi daal di démentir yooyu les informations nga xamante ne nii. yenn ci ay euh, chaîne télévision ak euh, site internet daal dinañ koy euh, reprendre ba tax na am ci ñoo xamante ni ñu ngi ci doon addu te dara leeru leen ci ñoom nag ñu ngi daal di xam la rek ni que ki nga xamante ni moo di Youssou Ndour rek dina daal di yóbbu fi mbaxane doone benn ñi nga xamante ni ñoom ñoo fësal yooyu les informations ñu dem fële ca Ziguinchor wax ci cas communautaire nga xamante ni euh, benn pa boo xamante ni mu ngi toll ci 63 euh, ans moom moo daal di euh, amee boobule jàngoro ba tax na sax moom sax daf ko daal di wàll li nga xamante ni moom moo di médecin bi ko doon traité waaye nag bañ ko defalee test ba noppi nag agent de santé yi dañoo daal di dem këram ngir répertorier ñi nga xamante ni ñoom la amaloon contact ñu nag ñu ngi toll ci vingt 24 personnes ba tax na sax procédure procédure de confinement bi euh, daal dina euh, démarrer euh, ci boobule famille. ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di trafiquant de drogue yi nga xamante ne ni ñu ngi inondé dëkk bi ba tey ba tax na 7,6 kilos de hashish. la ñu daal di jàpp fële ca Saly ci cadre euh, lutte contre le trafic de drogue nag élément yi nga xam te ni ñoo nekk fële ca commissariat urbain euh, bu sali nag daal di nañ euh, exploité li nga xam te ni moo di ay information yoo xam te ni moom moo nekkoon ni que fab benn réseau bu yaatu boo xam te ni dañuy transporter drogue ci loolu nag lañ leen daal di interpellé ni ki jeudi 9 avril 2020 juróomi nit nag ñoom lañu ñu daal fekk ñu yore li nga xam ni ni moom moo di 7 virgule 625 kilogramme euh, bu euh, drogue nag benn enquête nag daal nañ koy ubbi ngir euh, xam affaire bi fan la jóge ak fan la doon jëm bu ñu sukkandikoo ci xibaar ñu libération daal di jox les pays riches réunis dans le G20 dañoo daal di euh, suspendre euh, li nga xam te ni moom moo di euh, dette yi dëkk yu pauvres yi daal di amee ngir douze mois maanaam un an nouvelle bu neex boobu nag mu ngi daal di génn ni ki démb Arabie Saoudite nag ñoom ñoo ko daal di ba tax na lu ñu xamle rek mooy ñoom dañoo am benn engagement bu leer ci billet wu organisation internationale bi FMI ak li nga ni moo di banque mondial suspension wu dette bi nag nekk na benn annonce bu am importance boo xam te ni dafay signifier ni que euh, pays pauvre yi euh, am soxlaatuñu euh, inquiété wu ngir fay bor bi nga xamante ni échéance bi nekk na au cours des douze prochains mois kàddu yooyu ci ko daal di eh, yëkkati rek moom moo di eh, Mohamed Al Jadaan nekk eh, ministre des finances saoudien professeur Seydi nag dafa daal di inquiété ci li nga xamante ni moom moo di cas communautaire yi nga xamante ni ñu ngi tàmbalee bari ba tax na sax moom professeur Seydi moom lu mu daal di xamle rek mooy confinement partiel bi nekk na lu efficace waaye nag lu ko gën a yomb rek mooy ñu généraliser li nga xamante ni moom moo di port du masque xibaar nag waa Libération ñoom ñoo ko daal di euh, fësal. ñu jeexalee ko ak président de la république ak benn dogal euh, bu mu jël euh, ni ki ci conseil des ministres ba tax na moom chef de l'état daal dina demander au ministre des finances et du budget en relation avec celui de l'économie et de l'observatoire de la qualité de service financier yi ñu engagé avec les responsables de la BCEAO établissement de crédit ak euh, institution euh, de microfinance yi ngir ñu waxtaan ak ñoom xool euh, naka la ñuy tëralee rek benn date boo xamante ne ni dina permettre ñi nga xamante ni dañoo amee ay bor ci banque yi mën a repousser li nga xamante ni moom moo di date d'échéance bi. mbokku internet yi cant ngërëm ñeen na leen di lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci si yeneen xibaar.